yéen waa Pikine ana fan ngeen toll état moral si wàccaay beeg yëpp. toll bi mooy rek d'abord ñu ngi woote jàmm di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci département bi parce que Pikine ak Géejawaay ay ma rakk lañu rek certes derby la waaye war nañu mën a jàppalante moo tax d'abord ñaari kan yëpp maa ngi ciy woote jàmm di ci ñaaw salaam. ñun ñëpp ñu ñëw ci fair play ak discipline làmb ji jeex ci fair play ak discipline. di wax ne Boy Niang suñu doom la ndax papaam suma mag la yàgg nañu ak moom booy ñaŋ daanaka Pikine mbooloo la jànge bëre mësuñu tàggoo nag ku mel noonu nag su amee bis ñu wax ñu ñu yëgal ñu lu ñuy def ñu boole ñu si dinañu ñëw seetaan si ko xelal ko jëmmal ko gunge ko wax ko suñu xalaat pour bis bi woyof ci moom en tout la làmb ju rëy la. mais jàpp nañu ni li nga xam ni moom mooy dernier réglage yi suñu ko waxee ak moom mu ñëw ci xel mu dal yàlla mën na ko may ndam lu leer naññi. père ba gis tamit ci combat bi am na benn avantage boo xam ne peut-être gis nañ ko si Boy ñaar ndaxte ay magi làmb rek a ko wër ku mel ni yow père pa père Pape Diop Boston Mansour Diop bi nekk Italie Pape Pape ak ñeneen ak ñeneen da ngeen di tenir ay réunion di waxtaan ak moom wala. waaw parce que ménagère am rek làmb la Bourkhane Bourkhane moom ma formé man booba dana moom euh, ba Pikine mbooloo di dox dañu jëloon petite catégorie bi jox ko ko muy liggéeye ak ñoom di leen préparé mën nañ ñi tey ñoom Mansour Diop ñoom dégol ñii ba ci man ñun ñëpp manager moom moo ñëw daan préparé kon su ñëwee yor ko nekk suñu mag te ñun famille lañu ñu nekk benn staff toujours ñu ngi wax toujours ñu ngi xalaat parce que boo xoolee ni muy bëre nga xam ne kii bëre mag lay bëre soo xoolee ni muy jëfee macha allah nga xam ne jëfi mag lay jëf ku mel noonu nag su amee bis danañ ko jëmmal gunge ko waaye ñëpp seen xel day dal parce que am na lecture de jeu. bu weesoo loolu combat amul benn risque pour amul risque parce que la daguerre saison 2005 2004 la ñëw ci làmb ji bëreeg ñëpp nag def fi loo xamante ni ay moromam ay VIP yi ngi fi defuñu ko benn defet rek la am. te mosul laal suuf benn defet rek la ku mel doon VIP booy ñag ñëw anticiper carrière lu mu waroon def ci 10 ans mu def ko ci diggante 2012 ak léegi daan moroomam yëpp fëgg buntu VIP yi mu ñu ubbil ko ku mu fa fekk la deger kooku yokkute la si ñun mais du arrière du risque du amul dara loo xamante ne ngaañ la siy jógee. waaw la deger bi jaaxalu leen. waaw non. mënoo parce que ci combat bi yokku na ci poids carrément. waaw mais mënoo jóge ci sa kees ku ne xam na ni lourd la plus de 100 kilos la te maa lay wax ni la mbër bu xasee yegg 90 kilos. jëm 100. kenn ëppatu ko doole. te Boy Niang foofu la toll. moo tax poids bi inquiété wuñu li ci des ay calcul la ak ay argument yu mu war a indaale. ñi ko war a wax ñi ngi koy wax ak moom. incha allah jërëjëf.